ku ci am rëq-rëq da nga ñuy woo ñu seet nañ lañ koy saafara euh, sànq rek directeur général des élections moo ma woo di ma wax ni Kébémer am na ay électeurs yoo xam ni seen bureau de vote seen bureau de vote dañ ko transféré donc ñoom carte bi ñu yore liñ wax ni fan lañ war a voté ak bureau bi ñu war a voté bokkul ak léegi nii fi liste bi ñu war a voté nekk. bi ñu waxtaanee maag directeur général des élections ñu d'accord ci lenn vote droit la ku nekk da nga am droit de vote bu dee bindu nga ci fichier ci liste yi te sa tur mi ngi ci liste d'émargement wu bureau bi ñaar yooyu fu mu dajee na kooku voté même bu dee lieu de vote bi nekk ci kartam bokkul ak lieu bi muy voté même bu dee bureau de vote bi numéro bureau de vote bi bokk ak numéro bureau bi muy voté parce que li ci am solo mooy boo bindoo nekk ci liste yi da ngay voté ak fu bureau bi mën ci nekk ak lu mu mën a bind ci sa carte da ngay voter puisque mooy sa droit d'accord nañ ci.